ak loo mën di dof ak loo mën di doon te bu ñu gisee ni sëriñ bi bëgg-bëggam defoo ko tan lay wan ginnaaw. loolu mooy li war président Macky Sall dafa am lu mu warloo nag sëñ bi. waaw président Macky Sall bi nga xamante ni dafa jël réew mi. Hmm. fa mu njëkk a yàqu la mooy dafa ñëw traité kilifa diine yi citoyen ordinaire bépp teraanga bu Ablaye Wade defoon ci kilifa diine yi mu nangu ko ba àggoon si oto xalif Saadu Baye Fall mu nangu woon ko nangu seeni passeport yooyu yëpp bokkoon na si action yoo xamante ne defoon na ko yoo xamante ne neexutoon njaboot gi neexutoon taalibe yi ñaareel bi mooy président Abdoulaye Wade mi nga xam magum taalibe la nga xamante ni lu ne liggéey na ko Sëñ Tuubaa nekk loo koo xam ni am na cër bu rëy ci murit mu wàcc réew mi dafa la teraanga bu nekk nga tàmbali ko toroxal jàpp njabootam tëj ci kaso bi kooku neexutoon murit yi hmm. Sëriñ Sidi Moxtaar ñaan la njëkk teraanga pour nga bàyyi Karim Wade nga taxaw lànk ba nii nga koy bàyyee ci ginnaaw demu seen Seydi Moxtaar loolu neexu ko beneen bi bu fekkente ni tey jii ña nga xam ñoo représenté woon Macky Sall jamono yooyu noonu kàddu gu ñaaw gu nekk ñu koy jël di ko yëkkati ko teg si kilifa diine yi loolu du neex kilifa diine yi ba noppi problème assainissement bi à tout moment fukki at ak ñaari Macky Sall yëpp magal gu jot wala nawet bu jot assainissement bi gën a am jafe-jafe suñu wari Touba loolu du neex si xol mm-hmm. beneen bi mooy ndox mi ñuy naan day manqué. loolu bu fekkente ne murid yëpp day la nañ loolu ak concentration bi ñu jàpp ni war nañ ko jox kilifa mu des. Hmm. yaakaar loolu moo nekk une bombe boo xamante ni moo tax ka Macky Sall doon perte Touba. est-ce à waa Touba dañu mere woon Macky Sall ci considération yi nga lim nii. waaw dañ ko mere woon. parce que gis Macky Sall dañ ko mere woon man mere googu sax lan mere ba lépp loo xam tax nga si Macky dañ lay mere waale ku ne xam na ni Touba man maay ko ëpp base politique loolu yàllaa ko def te buñ ko doon wat mooy ñun kese ñu dëkk Touba ñu dem ak suñu bopp élection waa Touba tànn ñu ba xam mais àgg na foo xamante ni euh, ñu bari dan naan ma yow Cheikh Abdou Day yow xamul nu lay def waaye mënuñu wote diw parce que Macky Sall dañ jàpp ne bu ko wotee diw Macky Sall moo fi continuer may leen man li ma ñor mooy projet bi ma am pour rek moo ma ñor gisuma leneen parce que mënu loolu di xeex benn mbir 2017 ba 2023. waaw tuubaa tànn la def la jox la deux mandats assemblée nationale ngay xeex ndoxum Touba ndaw ñu am liggéey. Mhm. jigéen ñu am formation. mais nit ñëw ne la dinaa ko def dama gis jamonoy Serigne Fall bi muy jàppale Senghor Touba taxoon Serigne Abdoulaye bi muy jàppale Abdou Diouf Touba taxoon Serigne Mountakha taxaw wax ni man kat la dëgër laa bëgg Touba man ma dégg ko sama nopp bii nii nga xam bu ma ko mën maa ko defa sama bopp. nit ñëw ne ma Lac de Guiers laa lay indi Touba bu ma gañee comme ni ko sëñ Sëñ Mountakha bëgg. Mhm. ba pare bind ko jox ma signé jox signé jox ma. ma dem tàggu mun Muntaxa wan ko ko mu jox ma si ñaan mais man lan laa war a def bu doon yow nan ngay def mm-hmm. lépp lu man doon si àddina mën naa koo ñàkk sauf Touba mm-hmm. loolu moo tax que ku am projet pour Touba rek da nga amaale mm-hmm. ndax sama lépp Touba laa ko jox te bu doon suba ma defaat ko pour intérêt Touba donc donc donc en clair loolu moo indi quatre pour cent suffrage yi nga xam ne loolu moo waral quatre-vingt-dix pour cent souffrance boobu noonu ba pare boycott bi nga xamante ni waa Benno Bokk Yaakaar boycott nañ ko contre Amadou Ba. Mhm. ci ndigalul Macky Sall dafa feeñ parce que ñi woote foofu noonu man maa tax ñu woote. parce que man ma Macky Sall dafa woote woon boycott. ah oui parce Sall bari na ay kilifa yoo daf leen wane leen bu leen woote Amadou Ba. ci biir Touba. fépp. woo téléphone wala. ah waaye yow ah oui Macky Sall dafay am yàq lu bari si ci ci Ba. te daf ko mere pour ñett raisons yi tax mere ko jëru ko woon parce que Macky Sall. Amadou Ba Sénégal moo ko gënal élection parce que bu fekkente ni tey dem nañ ci élection moom mu tànn ko tànn gi neexu ko parce que wax na ni candidat la boo xam ne nekkul candidat boo xam ne ko tànn si xolam mais mënutoon a ñàkk ñu dem ba si biir mu proposé ko ne ko nan dàq élection yi hmm. Amadou Ba lànk hmm. ne ko jàmm moo gën élection mais mais mais honorable li ngay wax ni graaw ah aussi tabb nit ki choisir ko ci jamono. dama ne Macky Sall dafa wax Amadou pour a ko nañu Macky Sall dafa wax Amadou Ba ni ko nan dàq élection yi. mu choisir ko di woo ay nit ne leen bu leen ko voté. loolu dafa am est-ce que. dégg lu ma wax la bu baax hmm. dama ne Macky Sall. Hmm. dafa wax Amadou ni ko nan dàq élection yi Amadou Ba Macky Sall bindu conseil constitutionnel ngir ñu dàq élection yi conseil mu jàpp ne Amadou Ba moo ne si ginnaaw conseil na mais mais Amadou Ba mënul dàq mënul dàq élection la. ba Amadou Ba refusé woon amul décret bu muy signé parce que le candidat de pouvoir. mais am na lu Amadou Ba amul. non xam xam nga xam nga Macky am na décret boo xam ne xam nga xam nga xam nga décret bu Macky am ki nga xam mooy candidat de pouvoir bu accepté dàq élection comme yow ni nga ko bëggee hmm. lay mën naa am mais daf refusé parce que nee na ko jàmm moo gën élection conseil constitutionnel bi mu génn décision bi dafa jàpp ni Amadou moo ne si ginnaaw conseil muy ñaar ñetteel bi Amadou Ba bi mu déclaré si France 24 nii bu gagné censure yu njëkk yi day génne Ousmane Sonko ci kaso bi ñi mm-hmm. ñi dem na ko génneel Ousmane Sonko wala ko Amadou Ba génn daf lay wor parce que day wax ak waa Pastef mm-hmm. bokk na si li gën a gaawal loo amnistie bi mm-hmm. mu lay wan ne la nit la koo xam ni pour man Sénégal moo ko gënal boppam parce que bu ko neexoon moom bu ne nekkatuma candidat benn bokk du am candidat te ñoom il faut daan def ba nga xamante élection du am parce que parti au pouvoir du am. na ma nekkatuma candidat élection du am seen Sénégal. Hmm. ah oui. fekkoon Amadou Ba nekkutoon nekkoon na koo xam ne dafa demoon si bañeeru boppam nga xamante nekkul si benn bokk yaakaar. Hmm. dana ëpp li mu am parce que nit ñi bëgg nañ ko. Hmm. mais. bi mu ñëwee dis def discours continuité nit ñi ko comprendre ban continuité moo taxoon muy wax. Mhm. ñu ni kon rupture du am. élection seen élection référendum. Mhm. man xamoon naa ni élection yi Ousmane Sonko bu génnee nekk candidat day gagné wala ki maanaam day gagné xam nga man xamoon naa ko. parce que mhm. yàgg naa wax ay émission ne Ousmane Sonko dana génn balaa élection yi. te day gagné élection yi. yàgg naa ko wax. mais lan mooy ndey kon ma xam loolu ba pare. dem ma ànd ak ñoom candidat bi lan ma war a lool loolu hmm. mooy li ëpp solo ci laaj mais mais gisoon nañ quand même nga ne comme Diomaye ñëwul seet si la doo mun a am ak moom waaw xam nga loolu benn tamit loolu xam nga loolu euh, benn argument la ma tegoon regret déedéet man ni ma toll nga dégg ñoom ñu ne bi nekkee si kaso bi ñi ngi doon woo nit hmm. ba lim ni woonan Bougane woonan Ousmane Diatta woonan diw mais lan moo tax woowuñu ma nga dégg nga nit ñu nii bi nekkee si biir kaso bi woonan diw ak diw ak diw parce que seen téléphone la yoroon dañoo amoon jot di woote mais lan moo tax man woowuñu ma téléphone am sama numéro ñaareel bi. Mhm. procès bi ma amoon pour Touba. ñoom bu ñu ko amee comme ni nu ko waxee nii lan moo tax présenté wu ma procès boobu noonu wala ñu wax ko ñëpp di ko dégg même bu ñu ko waxoon ni ñun am nañ procès pour Touba pour ndox mi pour lii ak lii ak lii ak daara yi mhm. même su boobaa man ni ma demee Ousmane Sonko Ousmane sonk moom laa gën a amal relation ci Amadou Ba malgré que Amadou moom laa njëkk a xam. Mhm. mais Ousmane Sonko dañoo dem suñu relation bu àgg foo xamante ni sama doomu ndey la par nekk sama xaar sama mbokk. Mhm. mais ador tout loolu lépp Touba ma ko gënal. mais comme gisuma projet Touba pour ñooñu o pare woowuñu ma mais man est-ce que man sama dimension ak fi ma toll ci réew mi dinaa mel ni ñoo xamante ni dañuy mel ni xobu garab boo xamante ni dañuy jékki-jékki rek war dem wuti ji ñële ngir seen intérêt yi ñu war a am pour ëllëg. Mhm. man si ñoom seen ban intérêt a am. si ñoom est-ce que ñoom jàppuñu woon ne da nga am collision ak justement waaw mais xam nga loolu lépp xam nga loolu xam nga xam nga xam nga loolu mais mais ñoom ñoo gën a am relation nguur gi am na ñu am relation ak Macky Sall ak maanaam ñoom ah oui comme ñoom parce que tey boo demee assemblée nationale hmm. tey ñoom ña nekk député Macky Sall yi lañ relation ci man hmm. waaw xam nga xarit ak politique du ñoo bokkul kenn ku nekk am nga sañ-sañu am say xarit te da nga xaritoog Amadou Ba Amadou Ba sama xarit la comme ni ko Ousmane Sonko nekk comme ni ko Malick nekk comme ni ko Déthié Fall nekk mais li am solo mooy sama politique du nit moo ma ko yoral man dama góorgóorlu ba nekkoon ci ay parti politique ma gis nañu doxale néexuma ma contre Macky Sall bokk ci projet Ousmane Sonko bi xeexal ko ba dugg si kaso pourquoi mun ñu fàttaliku loolu man xeexal Ousmane Sonko moo tax ma dugg kaso xeexal Ousmane Sonko moo tax ñu nangu sama ñetti moo tax ñu tëj sama entreprise du liberté xeexal Ousmane Sonko moo tax sama doom feebar hmm. pendant deux ans mu nekk hôpital États-Unis mais kon fukki at ak ñaar yi may xeexal Ousmane Sonko contre Macky Sall bu dugg si kaso dañuy koy jënd ñeent fan yi nga xamante ne jënd naa ko pour intérêt Touba. est ce que jii nii honorable pour ñëw jàpp ci liggéey bi ci régime bi fi nekk di nga dem wuyu ji. waaw mais man damaa damaa gën parce que procès bi jër yu man ci laa bokk. mais man nekkuma koo xamante ni damay langaamit man fu mu mën di nekk intérêt bi moo ma gënal sama bopp est que pare nga pour liggéey mais liggéey ak ñoom mënul passé procès yi ma am pour Touba am ko pour réew mi buñ ko accepté ñu ànd liggéey si loolu mais man pas man may dem naan damay genn nekk na président de la république man maa ngi nekk député teewal Touba am na procès pour Touba gama dëkk mais na ko matérialiser ñun ñu continuer suñu liggéey mm-hmm. ndax waxtaan mënul ñàkk parce que ñoom bu ñu bëggee indi ay loi assemblée nationale il ñu mm-hmm. bëggee wote budget bii nii il faut mu wax ak ñun ndax fii ak mois de septembre xaar octobre pour ñu def budget ba mois de décembre mais waxtaan mu ñàkk muy mm-hmm. man muy waa Benno Bokk Yaakaar parce que bokkuñ seen parti. Mm-hmm. même man fekkente ne waxtaanuñ sax ak man intérêt réew mi bu jotee dinaa jël li nga xam mooy intérêt mi teg si kanam parce que budget Sénégal dama ko doon defee parce que boo gisee tey jii ñu bari mere woon ma ci waa Pastef yi na député yi.